الحمد لله رب العالمين mbokk New York mbokk taalibe yi ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ma santee yàlla damay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmed Tijani mbooleem sant ma yóbbu ko ci ki nga xam ni moo ma fekk ci lëndëm dugal ma ci leer ki xotti sama xol def ci yàlla ki yàlla sédd muy séddale kooku di kan Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima nañ wax jërëjëfee Baay bëri na ci doomu aadama soo ne jërëjëfee bàyyi ñu ne la shirk la te dañ ne man laa yashkuru naasa laa yashkurullah soo demee ci alhamdu mboolem xaa ci cant ñeent yi nit defal la lu baax nga ne ko jazaakallaahu xeeran mooy ñeenteelu xànc ñeenteelu cant gi kon nit ci boppam ñun lu tax ñuy gërëm Cheikh Ibrahim gërëmuñ ko ngir taaram gërëmuñ ko ngir nàngam waaye Cheikh Ibrahim daf ñoo defal loo xam ne suñ ko amutoon man de gëm naa ni damay ñibbi Guinée di sàmm loolu laa gëm ndax Baay du kenn kenn du moom moom rekk la yàlla may lu mayul kenn ci kaw àddina nit du complexe ci boppam xam sëriñam li ko yàlla may ci kaw àdduna man bokkuma ci ak ku mënti doon baay laa xam te ni ma ko xamee baay mooy ki nga xam ni moom la yàlla may mu osé ci kaw suuf osé suñ koy wax mooy koo xam ni dafa am sañ-sañ ci yenent bi sallallahu alayhi wa am sañ-sañ ci Cheikhu Ahmed Tijani parce que sooy xool bàyyi ci ay waxam dangay gis ni moom day bind léppam daf ko bind amul benn wax joo xam ni waxu nii la rek wala waxu bakkan déedéet bàyyi waxam yépp daf ko bind wan ko taalibe wan ko doomu aadama yi looloo tax ñu gëm ko tey nag yàlla may nañu nu ko Malcom waxee ña nga woon na daaw waaye bàyyi moo namm ci moom mission bi tey mu yebal ñu tey ñu ñëw Amérique ndax su ma koy wax ñu bari dañuy ree dama naan dama daw senegal gars yi naan ma sëriñ bi bul wax daw ma ne leen ah yàlla su defee ñaari tànk ngay dox soo gisul loo xam dangay daw ndax daw ba raw ci ngóora la bokk nit du jaay boppam kenn mënuluma dara nag ndax bàyyi laa ànd waaye baay moo namoon ne yow sëriñ Baye di ñëw fekk fi ay ndaw yoo xam ne xale yi ndaw lañ xale yooyu ñëw nag ñu xamaat ni faydu bi day tàkkaat fii ci amerik ndax bàyyi lu mu waxoon maratan uxra taraaw ni ajaban beneen yoon boobu ñu koy gis ci ay melo dubul yaakaar rek benn melo la ndax Cheikh Ibrahima Niass damay wax ne set rek faydu mu ngi tàkk ci moom ci sëtam yi ci doomam yi ci lépp luñ mënti doon tey seetal ci Medina Baye bëri na ci ñoo xam ne ay sëtu Cheikh Ibrahima Niass ay doomu Cheikh Ibrahima Niass ku ci nekk taal nga faydu boo xam ni si yow sa génération ci mbool boobu ci mbooloo boobu taal nga faydu faydu boobu nag tey takkoon na fii ci Amérique ndax ñépp xam nañ imaam Hassan sise taal na fi faydu waaye dëgg dëgg dëgg dëgg ban faydu la xaaraat mooy faydu ndaw yii ñëw ñu nekk ay taalibe Cheikh Ibrahim fekkaat fi mag ñii ñëw nekkoon fi ñu war a ñëw toppaat ñoom ci seen tànk ba yàlla may ñu lum ñu may cest à su may def lii yépp wax ji dafa am fu ma bëgg a jëm fu ma bëgg a jëm moom laa leen bëgg a wax maa ngi ndokkeel suñu xalifa suñu sëriñ waaye sama doom muy Cheikh Ibrahim gis nga yàlla su defee dara nit ñu jiital ko ci dara maxaama bu la yàlla mën a may dindil sa maqaama boobu nga sànni ko nga xam ni du hasard yàlla moo ko jiital teg ko ci yoonu Cheikh Ibrahim tey lu may nekk baayam baayam nekk doomu Cheikh Ibrahim wallahi alazim ñeme naa dindi sama mbaxane sukk ci suufam nuyu ko parce que boobaa lan la ndax ki fi Cheikh Ibrahima Ñas teg kookoy Cheikh Ibrahim da koy gën a dëggal nit ak loo mën a joteeg nit ak noo mën a mel ak nit ak lu mënti doon waaye suñ demee ba ci kilifteef rek bul gisati nit ak nit la gisal ne foofu kilifa la ak li nga xam ni mooy ndaw li ngeen baal ñu tuuti yen ñu ci kaw nit su ko yàlla jiitalee yow bul xoolati ci moom ak yow waaye dangay xool yow ka nga gëm mooy Cheikh Ibrahima Niass kon jëm jëmm Cheikh Ibrahima Niass mooy toog kon Cheikh Ibrahim maa ngi lay wax ne la suñ ñëwee fekk la fi boobaa kañ fi fekk rek moo fi nekkaat ñëwaat fekk si keneen mooy Mawlaana Cheikh Ibrahim lañ fi fekk kon ñu ngi lay ndokkeel ci loolu beneen bi mooy imaam Mouhamed Ndiaye sant nañ yàlla ci Amérique gii kër Cheikh Ibrahima ñas yaakaar naa moo njëkk ci kër Cheikh ci biir Amérique ci juma waaye yàlla may nañu tamit duñ cuune amul taalibe baay bu nekk cuune ndax fu ñu dem ñooy jiite ci xam-xam kenn duñu ñu jiite ci melo kenn duñu jiite ci jikko ju rafet kenn du ñu jiite ndax dafa am loo xam ne suñu sëriñ daf ko def muy Mawlaana Cheikh Ibrahim dafa am ñaari jëmm yoo xam ne daf koo doxee yenent bi rafet jikko lañ ko toppee waaye Cheikh Ahmed Tidiane noonu la te bàyyi moo sàngoo ñaar yooyu yëpp moo tax ñu ma ne ñun duñ topp kenn ku mënti doon nga jàngal ñu ci jikko wala ci xam-xam déedéet suñ la jàngalul rek doo ñu jàngal loolu Cheikh Ibrahim la ko yàlla may loo maa ngi lay nuyu Cheikh Hadi kon imaam yàllaa la jiital ku mënti doon tamit gis nga heure bu ma ñëwee ci jumaa ji da naan ma jiiteel ma ne la déedéet yaay imaam jiiteel ndax Cheikh Ibrahima Niass dafa jëloon Seydi Aline Cissé di ko teg ci kanamam naan ko del jiite te su ko neexoon moom bàyyi mu taxaw ne moom mooy lépp jaay ko maanaa gi won ko ko waaye déedéet bët bu set dañoo war a delluwaat ci gannaaw di jàng jàngat yi mission yi boobu ma ñëw mooy lan mooy yéen ndaw ñii ñëw tey ñu koy gërëmee kenn ki nga xam ne taxawu na leen mooy imaam Omar Karaw mii toog ndax ndaw yu bari ci këram lañu wàcc ba yàlla mun leen a may ñu tasaaroo ci jëf ju baax jooju ak jëf ju rafet jooju kon li may wax mooy ñun taalibe bàyyi bari nañ fi te kenn ëpp ñu fi te chaque jour damay toog dégg taalibe bàyyi di wax ne wallahi ñun Médina war na paase fii ku ci nekk ci ñun rek nañu waxante te dëgg te yàlla tax ku toog sa kër di seetaan dara da nga naan o oh, war nañoo def lii war nañoo def laa war nañoo def nangam mais def-def googu lan lañ koy defee mooy yow mi nga xam ne yaa ngi xalaat loolu nga am dëggu ci sa biir xol ne bàyyi laa gëm bàyyi laa bëgg même suy benn dërëm naa ko def ci Cheikh Ibrahima Niass nan nga koy defee ci Cheikh Ibrahim ndaw yi saal bii balaa ñu fee génn yéen ñiy toog ma gis ñépp war ngeen a mën a jaar ci buuna kundul mais suñ toogee di gàmm kenn ku nekk jóg nank jël sa numéro téléphone bi nga xam ne mooy sa whatsapp nga dem joxe ko foofu parce que ñu def benn group boo xam ni ajjuma waruñoo toogati ñun ay taalibe baay lañ te ñu ci bari dañoo jël tariqa tijaan charte tariqa tijaan xam ngeen ko xadara jumaa ci la bokk mooy suñu feet waa ñun li ñu bàyyi defal te yéen ñi doon ñëw ci boodo beeg ñu fi nekkoon ñépp kuy ñaan di nga wasul ci Cheikh Ibrahima Niass pour am li nga bëgg te yàlla mu ngi la koy defal waaye pourquoi pa ñun duñ jàppante bëggante nekk benn chaque ajjuma xadara deux heures de la wala benn trois heures de temps nga bàyyi sa itte lu mu gën a itte boo gën a bëgg sax nang ko bàyyi nga ñëw ci Cheikh Ibrahim Cheikh brahim suy fay du fayee caaxaan de billaahi wallaahi tallaahi booy damay wax ne soo gisee ma bari tiitër bëgg solu Cheikh Ibrahima Niass moom ma ko defal lu ma am Cheikh Ibrahima Niass la xam nga bàyyi lan la ma defal ci liggéey bu ndaw bi ma ko liggéeyal wallahi lazim du ma tàllal sama loxo mukk waaye kuy liggs maa la gën a liggs gëm-gëm la ak xidma buñ koy xidmaal moo tax bàyyi di ñu delloo li nga xam ne moom la ñuy jox ay ndaw ngeen yu ñëw ci réew mi soxla ci réew mi wërsëg wërsëg bu gën a gaaw mooy jàng leen ci telmidiwul abdallah bàñas dafa ñëwoon telmi di dafa ñëw ci baay nekkoon borom xalal ju rëy gis Cheikh Ibrahima Niass lim xam yépp mu yëkkati jox ko Cheikh Ibrahima Niass bàyyi dem na ba nga xam ne daf na ko yow telmi di garanti naa la ci kaw àddina doo mus a ñàkk Mauritanie mbooleem muqaddam yëpp dañoo bari taalibe waaye talmidi doo ko gis ak taalibee mukk te suñ dajalee ba pare mu dem moom indi li raw loolu ñëw joxe ko ba nu muy génnee àddina parce que lu waral loolu garantie bi te doomam barke na ay sëtam barke nañ gis nga naar yi toog dañoo xam kan mooy Cheikh Ibrahima Niass maa ngi nuyu serifa Mariam suñu sëriñ di nuyu sama jarbaat Roqaya Sherifa parce que ak Zeynabu Roqe kon mhm, ndax kii ñuy wax Sayda Mariam ñaari maam la bokkee ñaari maam la bokkee ci ñi nga xam ne ñooy sëriñ yi indi tariqa tijaan benn bi muy bëddi benn bi muy cheikh Mouhamed El Haafis waaye bàjjanam daf maa yar soo gisee ñi naan MC Niass moom xam nga dañ maa yàq dañ ma gàtte ci sama ndaw ba nu may magee wallahi lazim bàjjanam dama musa nekk Mauritanie di jàngam ma daw jàng ba ma dawee jàng telmidiwul Abdoulaye di ma wër pour yóbbu ma ci daara ji ba may mii di wër may daw di dàqanteeg moom ba dugg ligsaar tëb dugg ci benn kër ba ma duggee ci kër gi di daw mais maire bi ci boppam bàjjanam moo ne waa lii lan la ana kóori maalu ma ne ko ana maa ni kóori ana wulli Cheikh Ibrahim mu ne ma Cheikh Ibrahim waaye laa olof bii di daw lan la ma ne ko duma olof doomu bàññas laa mu ne ma doomu bàññas yuuxu ci biir këram ñëwal yow ma ne ko benn waaye bu ñuy wax tëlmidi wala Abdallah moo may dàqe di kii moom xam na tëlmidi tëlmidi dugg ci kër gi mën ne ko xam nga lu ma lay xamal sa beneen tànk bu bu mu ci tegu génnal ci biti sama kër mu ne ko doomu baay bi dañ ko war a jàpp jàngal ko moo tax ma koy dàq mu ne ko yàlla moo ma bëgg ba indil ma Cheikh Ibrahim ci kër gi kii dootoota leen ko gisati ci jamono jooju garam bu naari xis bi boobu amutoon xumay ni moo amoon ak lu ñuy wax Afarco banque Afarco moo amoon mu ngi nii toog lum dee dee cinq cent mille nga koy jëndee moom rek laa doon sol waaye maamam boobu kooku mooy ci bëdd bi amaat maam ci Cheikh Mouhamed El Haafis waaye maamu dëgg-dëgg ba nag mooy Mawlaana Cheikh Ibrahim ndax Cheikh Mouhamed El Haafis moo indi tariqa Tidiane ci Afrique te bàyyi moo ko tasaare Cheikh ma Tidiane moo ko créer kee di doomu Mouhamed Naaji ak bu Ñas mi nga xam ne baay la moom mu nekk sëtu bëdd ba pare nekkaat sëtu Baay Ñas di doomu Umu Suleymaan waaye lu tax may wax loolu yépp te terewul ñoom seen maam ñoo indi tariqa tijaan waaye gisuñ dara lu dut ay taalibe Cheikh Ibrahim Ñas lañ nekk ñun doomu Cheikh Ibrahim yi ay taalibe rek lañ gis suñu bopp kon li may wax mooy ngir yàlla wa rasuli ñun ñu fi nekk ñu ndaw yi nañ crée parce que man ñëwuma fi pour sëriñ mais dama fay ñëw pour ñu crée faydu bi gën a tàkk ñu jàppandoo ñun ñépp liggéey loolu moo ma fi tax a gën a toog maa ngi jot benn message di la ko wax alxalifa Cheikh Ibrahim bu jógee ci Mouhamed Bey ak kii nga xam ne mooy Amadou bi tey novembre mooy juddu Mawlana Cheikh Ibrahim le 8 novembre ñoom ndaw yi dañoo bëgg a créer benn boo xam ni journée Cheikh Ibrahim Niass la gannaaw jël ngeen fii ñu jéem koo préparer njëkkee ko fii waaye ci biir njëkkee boobu yëpp dafa jot ñun tamit ñu xool état yi nekk fii yëpp taalibe bàyyi ñuy jokkoo mu nekk loo xam ni réeroo dootul amati leneen dootul amati suñu ootee ci bàyyi rek ñépp daw ñëw ci bàyyi loolu am na solo kon maa ngi waxaat ndaw yi na leen waaye waaye ngir yàlla war a suli tey la mercredi suba la jeudi waxuma vendredi bii de waaye vendredi bee di ñëw maa ngi ñaan képp ku nekk ci saal bi jàkkaarlook man maa ngi lay ñaan ngoon googu ñu tase kër Cheikh Ibrahima Niass billahi alladi laa huwa su fekkee tegante nga ak man sama loxo bii man maa ko wax man lu ma ñaan baay baay may naw ku ci ñëw ca xadara boobu teganteeg man loxo nii nuyu ne ñëw nga ci xadara bi li ngay ut soo ko gisul nu mu gën a gaawee ñëwal nga weddi ma ci tariqa tijaan billahi alladi laa huwa ndax am naa may ci baay te xam naa ne bàyyi jox na ma te sant naa yàlla ci loolu sama àddina li ci des dara safuma ci lu dul di liggéeyal bàyyi ba xëy dee loolu rek moo ma ci saf ndax lépp lu ñuy am am naa ko sant naa yàlla xaalis nii du àddina oto bu rafet du àddina waaye am baay mooy àddina te nañ leen am baay ngir yàlla nañ leen am baay kon imaam duñ guddal ñu ngi jéggalu di wax ne jigéen yi yéen tamit yéen ñu jur seen doom yi dee leen xërtal seen doom yi ñuy ñëw kër baay ndax baay rek lañ am suñ fa ñëwee nañ booloo te nag yomb na teg leen benn kees goo xam ni pour jeunes yi la chaque àjjuma kuy ñëw soo indee cinq dollars wala benn dollar sax di ko fa dugal su yàggee ñu am dara wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëfee baay